إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi santaat sunu borom subhanahu wa taala noo ngi koy baax noo ngi koy kañ ci mboolem xeeti tur ak melokaan yu sell te kawe yi nga xam ne sunu borom rek moo ko jagoo ku wéet la mu ci nguuram ku am kàttan la ci mbir mbir moo ñuy wërsëgal moo ñu moom moo ñuy dundal moo ñuy dekkal mu ngi seede seede dëgg ni képp ku yàlla soxla la gindi na ko kooku gindeeku la gindeeku faaw yàlla suñu borom boole suñuy gindi waaye ba suñu borom bàyyee ak mbokkam ba mu tànk kooku ku tànk la tànku faaw te dara mënatu ko gindee yàlla suñu borom boole ñu ko ci réer comme ni ngeen ko xamee ci ay bi ci nekk ci waxtu wi nuy daje di waxtaanee dundu saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam góor yu sell yooyu ak jigéen yu sell yooyu xol yi nga xam ni keneen mbind muy yàlla soo ko moo leen seedeel ak dal ak njub ak ngëm fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa ataabahum fatxan qariba ay góor ak ay jigéen yoo xam ni loxo bi daan yar ci kaw suuf muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen yar ay góor ak ay jigéen yoo xam ni dañoo am ngërëmal seen boroom defaatooguñ ak ay góor ak ay jigéen yoo xam ni yàlla defal na leen ci ay tawfiq loo xam ni kenn dootu leen ci dabat dëgg-dëgg inna fi qasrihim la ibra waxtaanee ñooñu lay ak waaru mu ngi ak fàttaliku mbokk yi ba ngeen yaakaar ndax ni ma koy baamoo ci muqaddima dara bu ne te dikra fa inna dikra tanfau lmuminin ndax waxtaane dundu saxaaba yi pour nettali la rek ngir yéemu déedéet ndax nettali la pour xam informé wu rek déedéet waaye inna fi xasasihim toog di nettali seen dund la ibra ak fàttali ko ak waaral moo ci nekk jullit bi nga xam ne bëgg naa jub bëgg naa am gërëmal borom bëgg naa teg tànkam ca tànk ya yàlla gërëm la chaque ni kooka toog ci ron keppaar fu ñuy waxtaanee dundu saxaaba yi ci gën a am solo la bokk ndax da koy jubbantiwaat di ko wanaat yoon wi di ko xàllal yoon wi di ko leeral yoon wi ba mu xam ku am ngërëmal suñu borom fan lay jaar noo ngi nekkoon ci kenn ci soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yaayu jullit ñi kenn ci jigéen ñooñee nga xam ni ak dund bi ci boppam faw comme ni ma ko waxoon lu yàgg dafa mel ni bu ngeen seetloo ñi jot a am seen dund ci jigéen ñi yàggul ci lool comme ni ñu yàggee ci Aïcha bokk na ci sabab yi mooy yi ma doon fàttali ma dolliwaat ci léegi Aïcha ci boppam boo dee waxtaanee kaadal ndaw ñi ak dundam dafay doy tëkk ndax bi ñu koy jox yonent bi juróom benn at la booy waxtaanee kaadal mag ña ak dundam dafay doy tëkk ndax dundam dafa am juróom fukki at ak lu topp ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day waxtaanee kaaloo biir néeg sëy yi dundam day day tëkk ndax ay jàngale yu jeer defe naa xam nañ ci dara ndax ci lañ toll booy waxtaane ak ragal yàlla ci jigéen ñi da ngay fekk ni daanaka xaw rusukam da ngay daan ci néeg Aïcha la fekk baax waaye amul jaanib ci jawaanib yi nga xam ni dañ koy soxla rawatina jullit bu jigéen bi lu dul boo càmbaree laam ba gisi day Aïcha dañ ko koy fekk kon damay wax dafa mel ni bind bi jullit yu jigéen yi ci boppam ñoo ëpp lu ci jariñu insha allah kon tey ñu ngi tàmbalee ci zuhdu Aïcha radiyallahu anha wa infaaquha Aïcha ni mu dëddoo woon àddina nga xam ne tey faata dëddu àddina ci boppam nit ñi xamul lu muy jekk waaye ñaar mooy suñ ko waxee xel yi ci góor la muy def ndax ñun dañuy fàttali dëddu àddina góor ak jigéen ñoo ko aajoo dañuy fàttali maanaam li baax li góor bëgg loolu la jigéen bëgg dañuy fàttali ni fa yàlla soxla li muy góor ñi wala li muy jigéen ñi Aïcha nag day représenté jigéen ñi ci suuf du dëddu àddina ak dépensé ci yoonu yàlla ñàkk nañ ci ay duruus ñuy wax lan mooy dëddu àddina waaye comme agsi nañ ci bunt bi moom moom moom mbat ko jàll dana bokk ci am taw mbokk yi dañuy jàpp ne dëddu àddina mooy luñ tol lu rafet ku lekk lu neex bu lëkk ci kër gu baax dee sol lu kilim toog ñaari fan doo sangu saamu yëre weex nga ne moom laay sol déedéet kooku fasmul xoofu léegi ku juulu la ndax ki doon jàngale dëddu àddina si gën a dëddu ñëpp ci àddina daaw dundee ni ñu ko firee te nan doon dundee lay firi doon ko mbokk yi àddina ci boppam ñaari nit danañ ko dund kenn ki da ngay toog ni moo dëddu àddina fekk moom àddinaa ko dund waaye keneen ki des moom moo dëddu àddina koo xam ni yàlla dafa teg ci lu tax nga war a mën a teew ci say loxo nga war a àddina ginnaaw àddina yaa ko dëkk waaye ki nga xamante ni moom daal ñàkk amul dara suñu war a xam ci xolam ni bu amoon bew kooku dëdduwul àddina waaye àddina ko dëkk dañ leen di faral di jaamal yeneen bi ci des mooy ki nga xam ne yàlla war a tëgal na ko lu yem wala lu bari waaye alal jiite lu ko moom moo jiital alal léeg-léeg mu am ay mbir yu dagan te moom mu xañ ko boppam te lenn lu ci nekk du ci gis lenn lu du xéewalu suñu borom subhanahu wa taala waaye dafay def li ñuy tudde ak iqtisaadu fi kulli shay kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas li ko yàlla wax di leen taggee ah wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata wasata yi ci lépp la muy ci dugg loolu gis mukk ma gis mu ëppal ci ni xawoon doo gis mu ëppal ca la muy lekk lay tuur doo ko gis mu ëppal ca la muy war wala fa muy dëkk ab julit bu simple lay doon boo xam ni boo ko xoolee da nga xam ne yàlla wërsëgal na ko waaye nag doo ko mën a joxañ baaraam ci dew na loolu nag ak yaatal rëy rëy la laaj waaye ci déggin bu gën a jàpp dëddu àddina ngoogu aante lu mu dëddu woon àddina ak ni mu doon dépensé ci yoonu yàlla mbokk yi daa xam ngeen joxe ci yoonu yàlla kan valeur la am man alladi yuxriju llaha xardan xasanan kan mooy lebal yàlla allahu akbar ndax borom bi subhanahu wa taala moom mi moom am yéen bi ñëpp loxoom la fees gan la ci xéewal ba àddina ko soxla gan àddina yi ci lay joxe te loolu du waat ni topp ca la doon joxe ndax kooku ñàkk na lay xaajoo ko jox déedéet waaye dama fekk ni ka ñàkk ka ñuy jox taalibe ci yàlla ci ñàkk ki ñuy jox taalibe bi yàlla kon boo ko joxee joxal la yàlla subhanahu wa taala kan mooy lebal yàlla fa yu fa yu daa ay la yàlla mu ne boo ma lebalee junni ma fay la million ba pare wala ko ajrun karim fay la ba bis la saxal seet mbokk yi baa xam ngeen saraxe suñ toll ak valeur yi mu am toll na ci suñu bu jigéen allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam comme ci cadre jigéen ñi la ñuy waxtaane dafa ñëw ndeysaan kenn jigéen ñi ci xutba ba ay mu fàttali leen waar leen ba noppi ñu fa fa tasaddaqna fa inna kunna aktaru ahli nnaar waaye yéen a ngi sarfe mu ne boo ngeen di sarfe da ngeen xam ne yéen jigéen ñi yéen a ëpp sawara allahu akbar muy baat bu jii ku xam yéen sax ak ñu bëree yërmande ku xam yéen si ak nim bañee maanaam ak tooxal dal ci ab nit mu siy jigéen ñaa ne yéenay ëpp sawar kenn ci jigéen ña laaj ko waaw luy sabab sax ñu ko tax pour na la assuré da ngeen di wér di ñekk di nga gis jigéen borom këram defal ko lu dul jigéen mu mer mbaa mu neex ko jërë mbaa caay caay gis ko rek ñu ko mosoo maa defal dara mbokk yi sax kàddu gi suñuy jigéen duñ ko faral di wax defaloo ma dara bu ma gisalee ba ba ma ba ma taxee ba léegi xottuloo ko sax xaw ma nangam nangam nangam loolu ci sabab tay tax nga dugg sawar la ko allahu akbar beneen ci leneen muy facteur na laan dañuy di bëri lu ñu di móolu lépp xool subhanallah doon dund jub noo ko defee yàlla nga dee yàlla nga torox loolu kenn ko def yoonul boo ko waxee day nangu yéen yàlla nga ne ñaan bu bu kenn kenn mere doomam nga di ko móolu gis nga yàlla nga torox soo koy wax sa doom malaaka bi sax naa amin ñaan bi ngay ñaanal sa doom yow jigéen bi ak yow góor ci ay móolu ci ay rax yéen ko amal fas sax sax wala mbaam sunna tay tere nga war ko dam yàgg mu laaj ñu naan ko yàlla nga dee di doon déedéet loolu daaw yéen da koy tere sallallahu alayhi wa sallam xoolal sax mu ndax mën a mucc sa lool fexe ba ni sa loxo lay joor di joxe sa loxo càmmoñ di ko xam kon Aïcha noonu la mel radiyallahu anha waaye Aïcha ci boppam nag dëgg dëgg ku am askan wam soxee ko maa ngi ku dëgg àddina la maa koy jaxaar ci yoonu yàlla dëgg-dëgg wër laa jaaxal wër te nekkul bee borom yére mu ni laqad nasara aishatu fi bayti abiha siddiq radi allahu anhuma فتعلمت السبل منه نعم والله فهو الذي جعل ماله كله لله ولم يتعلق قلبه لحظة واحدة بحسام الدنيا الثانية الله أكبر فرد المني عائشة dafa ko ci kër bàyyam ci Abubakar Siddiq nga xam ni bu ñuy wax dëddu àddina ci boppam ba yegg ci Abubakar da ngay taxaw même boo naree jàll nag fa taxaw jiir mu ni dëgg la wallahi loolu dëgg la ndax waa joo xam ni alalam yépp la yëkkati bàyyiwut dara jox ko yàlla te xol bi xol bi ko yàlla war a dëggal matul sax ci dara àddina jii dem te loolu taarix seedeel ko ko ba yàlla la xiyaama daa xam tamit kii ku nekk sa bàyyi nga bor dara xam li may wax mbokk yi man damay damay damay xool ci xibra bi ngay dund ci àddina bu la yàlla dafa lay taw bi léeg-léeg da lay jàngal damay wax ñi nga xam ni yàlla wërsëgal na leen dëgg ñoo am ay soxna am na benn chance bu ñu leen di may mooy bala ngaa labat soxna labatal sa yaayu soxna ba noppi ba ngay jëlee soxna xoolal ko doon tax day yëru li ñu soppikum na ngay xool jiw bi fa nga koy ji xam nga ni boo amee jiwu gerte nga dem ba ca tefes ga suur ko fa soo ko tay tay la du tax nga ni géej gi duma ko xam naa ni baaxul waaye da nga dem ba ca jàngi ba def ko fa xam ne dina du tax ndax jàngi du bayukaay loolu mooy lan mooy nekkate jigéen ci boppam surtout nag yaay rawatina yaay dafa jóge doom ci dis day rogalaat day wàll faw mu nekk ci moom ay mbir gis nga ki nga xam dafa judd ci këru baax te doo xam ni yaru kersa ñun ñoo ci xamuñ diine lu ba da ngay gis ni maanaam suñ safara tajagul ba yàq ñooñu ñooñu tànn te ñooñu lu am solo wallahi mën nga saa fekk jigéen joo xam ne amaan na sax xamul ni sax jigéen daa war a tàng yaram mën nga saa fekk jigéen joo xam amaan na sax bu génnee lu safaanu lay topp waaye tey boo ko waxoon benn baat loolu góor jàmb bi dépassé jigéen jàmb rek mën na ca mer nag yooyu lu tax parce que fitra bi yàqoo bi moo tax may wax ne ñooñu ñu mat a bàyyi xel kon am na kër yonente bi sama kër bàyyam bi Abubakar boo xam ne dafa yëkkati alalam lépp jox ko yàlla xam ngeen ni waxoon naa leen ci te dundu Abubakar ko biir gis la yonente bi ne xel leen li ngeen am ñu préparé guerre bi Abubakar dem këram ba parti ma muy tàngoo sax da koo ëndaale te amul lu mu bàyyi këram kooku mooy as-siddiqul akbar kooku la yàlla wax naan wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujzaa illa ibtighaa'a wajhi rabbihil a'laa wala sawfa yardaa yàlla rek tax muy def li muy def wala sawfa yardaa dinaa ko fay ba xam ko sax allahu akbar mbokk yi maa xam ngeen ni Abu Bakr Siddiq daa jox alalam yeneen bi ba yeneen bi kontaan taxaw ci saxaaba yi ñu ne amul kenn ci yéen koo xam ni alalam jëriñ na ma bam sol ni ma alali Abu Bakr jëriñ ku ma mën a defal ci daa nga delloo naa la ba ñu mel bam def ni Abu Bakr ndax mënuma koo fay bàyyi naa ko yàlla allah yéen sunu Abu Bakr mbokk yi loolu bu la ko waxoon tey nooy def da ngay nee daay kontaan fa sarafa Abu Bakr Abu Bakr yuuxu jooy mu ne yonent bi sama alal ak sama jëmm lan la fiy jëriñ lu dul boo soxlaa bu jub allahu akbar kon kii moo jur Aïcha léegi soo nekkoon bañ ko ko jëlee jox ko borom kër bu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax àddina xam na góor gu gën a dëgg àddina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax àddina xam na góor gu gën a ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax àddina xam na góor goo xam ni comme yar nga yar ba mel ni Muhammad déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey boo delloo gannaaw ci lu sori da ngay gis keroog ba àgg si si ndeysaan ak ak mbir ak mbir maanaam ñun duñ ko xam lan bu ñu tuddee mbir nga xam ni ndeysaan ay wow koom jege suuf sax dafa tëb nee na sax ay xel bi jaar ah moom la Aïcha koy ji nekk xale juróom-ñeenti at yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xoolal loolu mu doon dundee ñëw na ci xadis boo xam ne mi ngi ci Buxaari yi ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ak Abi Muwayhiba ba yonent bi sàggoo saxaaba yee kontaan Abubakar di jooy ci jàkka ji ndax Abubakar booba xam na li xew gaa yee xamul li xew yonent bi daa woo saxaaba yi ba mu ñëw nekkee booba fan yaa ngi bëgg a jeex mi ngi sàggoo mu ñu leen man day yàlla damaa digal biig ma dem ci armée bi Baqiya ñaanal leen jéggalu leen wax wax ay wax yu gudd bokk na ci lam doon wax mu ni eh am na benn jaam ci jaamu yàlla yonent bi mooy wax mu ni am na benn jaam ci jaamu yàlla yàlla da koo tànnloo kaari magasin yi àddina yi ak montagne yi nekk or ak xaalis mu moom ko ba pare nekk bu yeneen ba pare sax ci àddina ba àddina tukki lu dee ak mu dee tàbbi àddina bu ko gënal waaj a taamu yooyu yëpp ko nekk àddina ba yëpp la dem mu taamu dee tàbbi àjjana ay Abubakar yóbbu jàkk ji subhanallah saxaaba yi nag ci moom dafa bari ay yoon moom bu yéen bi wax mu kontaan lu sax mu ree mu mu yoon saxaaba yaa ngi ree Abubakar a ngay jooy ndax Abubakar xam na ni sii day tàbbi ko saxaaba yi ñoom dañu jàpp ni yonente bi day lim ay ngëneel dama ki mbaax aw bakar ba muy jooy xam na ni kii day tàgg doon ndekk sa xarit dina la jege ba xam sa lim gis nga xoolal leen ci ko yàlla dox yonente bi déedéet loolu soxlawu ko na nekk abdan rasula nekk ab jaam nekk ab yonente subhanallah mbokk yi lan ngeen xam ci yàlla jox la lii lépp te du wàññi say daraja dara ba pare nga nekk yonent dee tàgg àjjana ñu wax la loolu ba nag ak nga nekk jaam di torox di tiit di mar di dëkk kuy kenn ba pare nga doog a dee tàgg àjjana benn ak waaye bii la tànn sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon kii laa sakka ni buñ ko joxee laqabu sayyidu duhaat duhaat sang ñuy dëgg àddina ñëpp wax nañ dëgg ndax moo ko jàngale kon mbokk yi lii de ay film la ñu lay wax ni kon Aïcha fi mu farlu woon ci boppam ak xam tàbbi ci ñoom ñaar yëpp a yem ci yàlla dafa mbokk yi ay wayjur fasa am solo soxna koo ci wayjur yu yàlla yu am cer baa di lekk lu mu lekk te bàyyi mooy ci dëkk yu bon tey bàyyi ay saadaan teeg waxante yu safaan biir ba duñu bàyyi day nekk nekkuñ dayu muy góor bu ñàkk fulla boo xam ne bu góor yabar yabaree ñëw nga bàyyi ko muy dugg sa biir néeg di xool say say say say doom ak waxtaan ak wér déet gis yàlla neen koo bëgg dugg àllam te yuus muy góor bu ñàkk fulla góor boo xam ne da ngay jur ay xale yu jigéen ak xale yu góor nga bàyyi xale yu jigéen ak xale yu góor yi jaabal ci biir kër gi jaabaa jom yi gën yéen doo dugg àllam déet kon mbokk ki yam ci ak kanu mel noonu ndax kooka am na ay mandarga wala ay jumtukaay yoo xam ne ku ko dimbale rek mën naa am ak mbaax am ci moom moo tax mbokk yi xam ngeen ni la yem yàlla ndax xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam ida faquhu da ngay gis ñaari nit ñu doon ànd lim lay gën a cedd bi ngeen lay sunna moo lay gën lu tax aw askan la day gis yéen ñaar kenn xama ko ci jigéen waaye yu bon yu bari moom da koy moy ko jëf dëgg la jigéen la tàngul aw yaramam waaye bu ko na sol lu bon génn am rus naa ci sol lu gàtt jigéen rus na xale bu góor kenn ko wax ah rus na nangam rus na nangam yëf yi ñàkk fayda yi ñuy wax ci mbedd bi ay téere yooyu boo ko rek mu mel lu tax ci moom ko xamul diinu baax lu tax parce que dafa yaru ci askan woo xam ni baax na waaye bu la yàlla nag nga génnee ci askan woo xam ni mu ci bale wallahi boo amul temps ceeb ceeb yooyu day des ci yow ba ci biir sunna li may wax defe naa du ay yéeg defe naa ku yàgg tuuti ci sunna xam na li may wax dana gis koo xam ne moom jàmbaar la waaye moom ci dëkk boppam am na melokaan yu ko néewu ci boppam te wóor na ko ni ba ko boppee yàgg na moo tax jikko jikko lu ñuy ji la day amee yeen gis nga boo ñëwee jàpp ni dagg dafaw doon ngay tax a jeex nga ñëw jàngal ak hadis bi la fekk baaxul rek fekk tàmbal nga dangay jàpp déedéet mbir mi dama ñu la faw nga sonn ci wutu feer jukki ko tukki ko ba ca suuf génn réer yi boo ko deful boo këttee ci kaw mu taxaat benn at ngay bàyyi benn at ma tax nga commencé fenaan doon te yaa ngi ci sunna lu tax ndax mbir mi daa amoon yeen moo tax lu ma ta sonn kon Aïcha radiallahu anha xoolal yéen a safar lu dul dundee Abi Hurayra mu ni yéen si yàlla moo ne law kaana li mislu uxudin dahaban la sarrani an laa tamurra alayya salaatu layaalin wa indi minhu shay'un illa shay'an arsuduhu ilayhi yéen si yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su ma yàlla joxoon lu toll ni montagne Uhud ci or undur déglu wastami su ma yàlla joxoon lu toll ni montagne Uhud ci or bala maa am la ma neex du ma passé trois jours lu dul séddale naa ko lépp way ñàkk ji su ma amee lenn lu may denc su ma amee lenn lu may denc mooy loo xam ne dama koy garde pour fay ay bor allah mbokk yi ñi nga xam ne dañuy am alal ba ci banque ci amul soxla subhaana rabbiyal aala allahu akbar loo xam ni ndeysaan yaa ngi koy màgg màggal di ko nekk nekkal si si buumoo ko sax nag. kan mooy koo xam ni alali jàmbur la gën a fonk alalam xanaa ñun ndax li nga denc banque foog nga ne mooy sa alal loolu sa alal deel tey ci guddi boo dee tey ci guddi di nga xam ba xam sa alal lan sa alal léegi tey nga xam ne li nga alal miraas la lan mooy sa alal mooy loo xam ne deel tey ci guddi muy sa julli barkaati bi yëpp ñu war barkaati bi yëpp booy dem bàngal mu lay doon jigéen ñi nañ jël seen doom yooyu kon loolu mooy sa alal nga gis moo xam ne sa denc alal ci dul jeex subhanallah ay dëkk ndoom di sonn am na compte banque am na nangam am na nangam yéen yàlla ngay dugg ci julli yëpp di julli kan waa joo xam ne dafa fanaanee lekk ba rekk dafa tëndoom bi billahi alayhi ñaata ngeen gis ay nit ñuy lekk ba tuuraat ci seen i dëkkal ci seen i dëkkal yu amul sax lu ñu lekk ak la yaakaar ni lii mën na nekk yenn dooroon nga déedéet man xam naa koo xam yàlla wërsëgal na ko te wallahi dan maa waxoon ne moom du day ci baax ba moom waxal na ko jëriñ allah li taxaw ko mooy li ngeen xam ne nekk di gis ne mbaax na nga xam nekkam ba tey pour sa yow la ko wax xoolal ku yàlla wërsëgal ñu bari te doon koo dee yéen yàlla bi ñu doon dundee sama sama jëli nekk yow yàgg rek musulman rek cub saxaaba nag lu xew lu xew ne ko daan wecc bi ba xam ci poos mu gaaw ba koo jël sarax ko bañ koo fanaan sallallahu alayhi wa sallam te du am dépense suba sallallahu alayhi wa sallam yeneen a ngi nii Aïcha nee na yéen yàlla bi mu faatoo kër ga daanaka bàyyiwut wala Amr bin Xaaris mooy nekk li mbokkum juwayne bi seen xaalis soxna yéen sa salam mu ne yéen yàlla bi mu faatoo bàyyiwul dinaa bàyyiwul dërëm bàyyiwul jàmbu góor bàyyiwul jàmbu jigéen bàyyiwul dara loo xam ne lu ñuy siddali ko lu am solo lu dul baax la xam doon wax ak jaat yan yoroon xanaa ay tuub yoo xamante ni comme ko moomee dina def koo jëlul def ko wax fi sabilillah allah yéen bi saa salam bawul dara daal par kay bi mu nee sax daa bàyyi dox ba xam ngeen loolu yéen ñu dee daa bàyyi bor tey li mu doon tere sax li mu dee def na ko xoolal koo xam ne ñi yaay ci li ñëpp ci sa bopp lay jaar ngay séddale di séddale ba am ko lii moo tax ay bu ko defee daa sax ne jaar na fa mu war a jaar yéen ci salaa sallam bi ñuy dee mi ngi am benn mbubbu comme boo xam ne benn yahud la ko kay lewoon ngir mu jox ko dugub bi ñu togg weer sallallahu alayhi wa sallam yeneen a ngi nii boo xam ne Abdoulaye Mas'ud nee na yéen bi dafa nelawoon yëpp xatan ndeysaan xoolal tey ñun suñu basal yi moket yi moket yi nooy ñeex yow da ngay julli xool ko jàkk ni moket yi ni mu nooyee wóor ko di ko tegaat beneen moket lu ñu ciy si jóg saxaaba yi xoolu xooloon ab jëm da ngay def ni boo mu cilee la boo mu cilee lu tax ndax jàkk ji ay xor la amoon xor ay xor xor yi da ngay sëjoon muy tax tax tax di dagg ko jëf yi ñun jëf yi nooyee yëpp xoolal lal yi xoolal ko sëy yow da ngay dem ba am ay laaj yu bëccëg yoo xam ne da ngay def réseau bi te ko ka dal xool yii xëy ci xéwal ñun am nañu yéen ñu tudd dig basal ba wet gi daal di marqué def ay marque marque sahaaba yi daal di ñëw ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey daa defal lal bu xaw kawe te nooy yonente bi ne maa ngi wala dunya mënul lu ma ci fekk àddina ba ngeen may defal lal bu nooy ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها man lu ma jotee ak àddina ba ngeen may defaral lan bu nooy ndax man dama fi am ay fan da ngeen may defaral lan bu nooy maag àddina jotoon bokkuñu dara lu ku doon tukki di nga koy tukki dem ba ca àll sonn wàcc ata gileem tuur ndox jàpp julli tëdd ci woon garab bi tuuti pour mën a récupérer jógaat waraat ata gileem dem foofa garab bi nga fay toog jarul nga fay defaral ñu booy tukki déedéet ndax diir bi daal gàtt mu ne loolu laay am ci àddina kon lu ma fiy def bay wuti lal yu noonu allahu akbar boo xoolee loolu ak li ñuy dund tey wallahi taral farqa shaafia distance bu sori lool ci kiñ ñi moom yee yaay la ñuy roy sallallahu alayhi wa sallam waaw wala nee na ante mooy nit li ñu wallahi yow sama doom bokk mi daa nañ toog la nandur ila alhilaali tumma alhilaali salaatu ahilla fi shahrayn ma uqilat fi abyaati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam naa mu ni ginnaa ci yàlla daanañ toog weer feeñ weer feeñaat weer feeñaat muy ñetti yoon kon ñetti yoon bu weer yu feeñee damay daal di tolloog ñaari weer mu ni te doowuñ taal xawara ci kër yéen mbokk yi ku taalu ci cin ndax la ngay lekk neex déedéet sawar ak li ñuy toog daa bokk ci li yàlla moo ñeewaale woon àddina pour ñu mën a dund ku toog weer xaaloo ci sa kër la ngay dund loolu neex la ngay dundee neex lu ngeen doon lekk mu ne xanaa sànq lekk tàndar ma naan baax subhaana rabbiyal aala xool yéen si saa sama ak kër ni mu gën a màggee ahsan wa ahwaru baytin ala wajhi al ard man toog ñaari weer du sàcc loolu sama mbokk mu jigéen sama yoon kër bu xëyoon amul lu mu joxe dépense dara ban ban nit ngay doon ban nit ngay doon nga dem nit ku mel ni am ma ne la kon day garab baax na ban nit ngay doon nga ni xaw ma jox xar benn teg moom ay baat pourquoi nit duuma ma ne la laa gën a Aïcha radiallahu anha ndax moom ngay rey wallahi boo waxee waaw wax nga lu dëgg mu toog ñetti weer ci kër yéen saa salaam ñaari weer yi ma cin du fa taal lu ngeen doon lekk mu ne ndox ak tàngaar ndax jigéen ñi mu ñëwee borom këram subhanallah xam nañ jigéen joo xam ni borom këram du ñàkkee xam nga lu doon def dafay laaj ñaata nga am yi may nit dara doo passé du du du ay mbir yu ñuy dund gis ko ñaata nga am mu ne ñeent fukk laa am mu jël ñeent fukk yi xam nga nu muy def dem ci boutique bi jënd pomme de terre xolli ko jënd xorom bu ñëwee baaxal ko ba mu ñor ak xorom si mu tëjaraate ko ñu lekk si moom ay doom waxuma si sama ne saxaaba ay saxaaba lu ñu dund ñun laaw loo xam ne bu dee am nay atis xam naa du ma fukki at allahu akbar xam nañ ay nit yoo xam ne seen borom kër bu ñàkkee ñoom ñooy dem wuti lëndi allahu akbar xam nañ ñoo xam ne seen i daaway nopp tekki nañ ko dañu yóbbu ca dëgg ba mu wéccel leen ko xaalis pour ñu mën a joxe ndax seen borom kër amul ci kenn yëgut allahu akbar yii may ñetti la am na ci yoo xam ne góor góor ga góor gi góor gi sax moo ma ko nekk moo tax gis nga li may wax baax baax bi may baax gis ne bu la baax sëyee xamal ne yaa baaxul rek waaye am na ñu la jege lool ñu baax na yow bu fekkee sa borom kër xëy am danga mel ne Aïcha ñaari weer yu mag cin du fataa day sax xanaa leen mu ne xanaa léeg-léeg daal suñu dëkkandoo yi amoon ay gidéem doon nañu rab yónnee ñu soow mbokk yi soow gendarme loolu dañ ko accord baax na vitamine bokk na moo ci nekk waaye mënut a bokk remplacé ak li ñuy lekk loolu bokk leen nga ñaari fan nekk mu sàpp la gisul waaye Aïcha dañ ko doon muñ jaabe nee na garab ba ñuy lekk xandax muy raswatul xandax nee na yonent bi ak saxaaba yi dañoo ñàkk lu ñu lekk dañoo xiif bay jël xeer takk ko ci seen biir yi pour ñu mën leen a reposer ngir ñu mën a taxaw allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam gis nga fii kii man bu rëy woon na ko xoolal te man fekk bi may def ci mbir yi mooy ñu koo xam ni maanaam kii daal li la yàlla yi dafa wax dëgg yàlla romb na xiif am loo lekk ci xew fii maa ngi ci fàttaliku bu baax ci xew-xew bii nga xam ni ci la xiifee woon bay takk ay xeer jaabel nee na dem naa sama kër ma rey ak kaas bu tuuti defar soxna si na ko monsieur defar ko ngir ma wax yonent bi ak xanaa Aboubacar Omar ñoom ñaar la ñu ñëw lekk maanaam daal loo xam ni cinq personnes la jaabel nee na ma di ko wax yonent bi ni ko soxna si day am na ab salaat su ma defar fële tey ngaa ñëw comme da ngaa xiif nga lekk ko ci même xew-xew bii may na ci la am yonent bi yaa am na xam ne ko léeg-léeg dañuy faral def noonu yaa ahlal hamda oo taalaw subhanallah jaabir nee na ma jiit bay lox lekk koo xam ne xalaatu juróomi nit la mu bëgg woo waaxal ndax ñëpp bu ñëwee fu may góob jàpp ma koy waxee jaabir bu ko wax waa ter yéen dafa tuuti jaabir nee na ma daw si yegg si soxna si ne ko musiba am na képp woo naa yonent bi waaye woo na àddina bi yëpp ña ngay yëg subhanallah lu mat ñeenti téeméer yi ci xalaatu juróomi nit jaabir bin abdullah moom ci ni ci yàlla nee na xalaat bi biñ ko tegee ñun ñëpp lekk nañ ci suur na dem def ñu bàyyi ko ci ñeenti téeméer ñu ci place ak juróomi nit kéemaan ji bu ko yàlla mën a defal ba noppi ngay xiif ba sett na bi xam nga ni ñàkk ko loo lekk da ngaa bëgg a jàngale kii mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aïcha nee na benn bis lay daan benn jigéen dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam këram fekk Aïcha lal darab bu xottaati ko darab boo xam ne daal mën naan yow boo ca tëddee moo bi tar ni koo sax mu teel ndeysaan ndaw si yaram dañu tuuru ndax xoolal ñu sa xalam këram di mel nii xam ndaw suñu def dafa dem seet waxalee seet dara mu rafet mu andi ko ndeysaan nga xam ne leen lan ko defaree rafet lay biree di siraf garaf mu ñëw may ko Aïcha Aïcha lal ko ci kaw lal bi yéen bi dugg si ni ko maara ya Aïcha lii mooy lan mu ne ko lii de benn jigéen ci waa Ansaar moo ñëw fekk sama garab bu xotteeku bi mu may ma garab bu dee allahu akbar un ba wax tamit am ki doon jàngale ni doon yaree sax naa mu ne ko lan ñuy yow lan ñuy nga delloo ko te nga lalaat li la yàlla war dëggal ba garab ngay am sa yëfi bopp allahu akbar Aïcha nee na ma def exprès di xool ba xam lan ñuy gaaw bi lu mu jibbee la ci xolam wa illaa loolu moo ko bàyyee dina ko bàyyi continuer mu ni ma yonent bi su ma saana wax nag li lay wan ni wax ji ñor na ma trois fois la koy defee nee na ma toog mu répété waat ay ko waxoon naa laal li garab bi yóbbu mu ni ma xaw tam xam ko ñette la mu ni dama ni garab bi laal li ko delloo ko borom subhaana rabbiyal ala mbokk yi nag yéen a ngi àndal man di xalaat yonent bi salaa salaam ñi mbaree kersa li bëggee baax ak nit dafa la teraanga nga delloo ko ko ni muy jiite nga xam ni ku may bañ yonent bee la ko gën a bañ su tollee fii may delloo liñ ko joxoon xam nga ni yàggal suuf am na lu xel yéen yàlla mooy taxaabu taxaabu mayante la ndax ngeen bëggante te ku ne xam ne ne mayante day bëggante man sunna lay tere sax nit ki la may topp par rapport sax nga delloo ko yéen tam bu nga ko mayee mu ni jëlal jëlal nit ko ko soxlawul jël ko bu demee nga mayewaat ko loolu def ko neneen kon buñ ko mayee mu delloo mi ngi ci lu mboqalu taxaw di jàngale sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi kër gu mel nii ku ma yaram xam ngeen ni war nga am ay melokaan moo tax ne Aïcha nii la meloon Aïcha day nit ñi waaye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fàttalikuwuma ak bis boo xam ni suur nañ ba yegg ci këll li ñu tuddee këll suur ba yegg ci këll mu ne fàttalikuwu bis buñ ko mën a def ba yéen suñu faatu sallallahu alayhi wa sallam moo tax Aïcha si wan la dëddu àddina googu danaan yegg ci woor ñëw na ci ay riwaayaat yu bari su ma ci toppoon mën naa jël suñu waxtu danaan woor bu wooree am lu tolloog juróom-ñaar fukki junni xam nga julli ñi waxoon naa ne mosaan a xeex ba pare ci xanaa yi xam nga wa alamu anna maa ganimtum min shay'in fa anna lillaahi xumusahu yonent bi néew fi waaye ay soxnaam ñu ngi suñu mosaan a guerre ba am 10 millions dañ ciy génne comme exemple ñu ni jël deux cent cinquante mille ku nekk soxla yonent bi jox ko deux cent cinquante mille ci misaal allahu akbar àggagul ci Zeynab binti Jahsh waaye maa ngi fàttaliku fu ko Omar ma sa joxee mu ni yàlla lii daal bëgg ma ko lii ma moo fi naree fekk déwén Omar di ma jox alal yoo xam ne ba xam ku ma ko jagat jagatee jëlee yàlla naa dee balaa déwén balaa déwén sama bi Aïcha ñu jox ko lu tolloog ci misaal juróom fukki junni Aïcha di ko séddale fi mu toog ci benn place benn ngoon ginnaaw sàkk sàkk di ko séddale di ko séddale di ko séddale wu jeex sàkk daf jot mu ni jaamam bu jigéen bi bari na jox ma lu ma ndogoo mu ni ko bàyyi woo fi dara yow lu tax mënoo doon bàyyi mu ma ci xëyoon dog ci yàpp sax loolu ndogoo mu ni ko moom ak fàttali woon sax loolu aay waaye fàtte woon naa ni sax danaa woo loolu ñëw na ci ay riwaayaat yu bari te yëpp yu wér la kon ñii da lay wax ni maanaam te du àddina gii dëgg dëgg dëgg dëgg Aïcha doon na ko ci baayam ak yaayam Aïcha radiyallahu anha ku am yërmande la gis nañ xeeti ñàkk yi boo ci jaare kuy am yërmande lay doon lu tax gis nga boo juddoo ci bàyyi boo xam ne ñoo am ñàkkoo dara sa primaire rek comme secondaire ngeen koy wax ak ndëgal la terminal te mosoo jaar ci ñàkk gis nga boo màggee doo xam doo doo yë bu la yàlla dimbali doo mën a yërmande faw nga xam lu metti moo tax benn borom xam-xam mu ni yàlla mooy xere gis nga yàlla mi yoonal koor ak a xere mu ni ki am lu dul jeex ci li ko ni ci biir kër waxtu bu ko neex lekk ñu ni ko bul ko laal ak ragal yàlla tere ko koo laal ak biiram di kurkuri ndax dafa tiis ngeen mën a xalaataale ñaa kon ndekete am na ñoo xam ne ñii la ñuy yendoo duñ am lu ñu lekk moo tax boo dee xool bàyyi defal yàlla yi ñi yàlla baax dëgg weer koor dañuy raakaar bi ci joxe xam nga tax dañoo mos ci ba xam siif luñ métti gis nga ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne lu yàlla def rek am na xikma ci sële kon Aïcha radiyallahu anha ku amoon yërmande la parce que tumarante gii mu jaar Aïcha radiyallahu anha benn bis ndeysaan dafa mos a am benn jigéen bu ñëw di yalwaa te foofu maa ngi insisté woon wax jigéen ñi dañuy góorgóorlu ci sarax sarax baax na de wallahi sadaqatu sirri tutfiu ghadaba rabbi sarxe te bi ngay sarxe da nga koo nëbb dama ni loolu day fay meru yàlla billahi alladi la ilaha illa hu musiba bi tol ni montagne mënoon naa dàq fële di daw jëm ci yow bi mu yegsee ba jubla rek benn sarxe boo sarxe woon rek tël mu daal li may wax bi sama wax bi yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam musiba bi ñëw bi mu ñëwee ba nar a dal ci sa kaw rek rek benn sarxe boo sarxe mi ngi taxaw nekk baaraam da nga yegg rek mu dóor mu daal mbokk yi bu musiba jooju ñëwoon fekk ko sarax bu la defal noonu koo jëm beneen bi ci des mooy sax ci boppam daa bokk ci mandarga jaami yàlla yàlla xam ci alquran rawatina jullit bu jigéen wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat di sax ay sa benn bis benn jigéen day daan ne xungo yow ndaw si daa ñëw di wut ci lu mu am sa dépense rek nga am ngay di ma joxe déglu ma bu baax te ku góor ki ku jigéen si ñëw bokk nii sa dépense rek nga am ngay doo ci joxe ay sa ndaw si daa ñëw kenn ko lu dul ñetti doomi sàndaram ñetti doomi sàndarma benn ñaar ñett nga xam ne loolu reggul Aïcha bay regg keneen amul jëm Aïcha nee na ndaw saa ngi ànd ak ñaari doom di yalwaa Aïcha ñëw ndaw ñëw fekk ko yonent bi Aïcha yëkkati ñetti doomi sàndarma yi jox ko ku muy defal yàlla allahu akbar ndaw si jël benn bi jox doom bi jëlaat beneen bi jox doom bi mu def ñaata mu def benn ndaw bi yëkkati benn bi di waaj a lekk balaa moo lekk fekk xale yi dañoo xiif ba biñ leen ko joxee dañoo war a tàndarma ci xale yi daal di war seen tàndarma rek yuutu wax seen loxol yaay ngir moom bu mu lekk boobu yaay bi ci boppam yàgg ci tàndarma bi xar ko ci digg bi ci di doom bi séddalewaat leen ko daal di toog Aïcha daal di yéemu ci yàlla kon bi xeeti yërmande bi yonent bi dikkee danaa noonu rek mu ñittali ko ko yonent bi ni ko gis nga ko ni mu amee yërmande yàlla moo ko ëpp yërmande ci jaam beneen riwaay mu ne ko xamal ni yàlla dugal na ko àjjana te jëf jooju mu def beneen riwaay yonent bi ni ku yàlla dénk ci doom yu jigéen yii nga rafetal te ñoom mel na nga war a mel bañ mata sëy nga maye leen danañ nekk dox sa diggante dugg sawa te yëpp ma wax ay riwaayaat yu wér na ak saakimatul aabida woor sax jaamu ko ci yàlla mën na ngaa jàpp ni bu ñuy wax woor góor gi kese la war a doon ndax bu ñuy wax julli kat dëkk ak ku ragal yàlla day sax borom téere mu ni xoolal waa jigéen a ngi nii yoo xam ne xam na àddina ko ñu mujj mooy day jeex day sax boo rafetee nekkub jàng loo rafet rafet da ngay nekkub jéem loo nekkub jéem jekk ko lool da ngay nekkub meer nekk màgget boo nekkee màgget boo paree da ngay jéem fii lii mujj lu fi jar rëy lan moo fi jot a topp sa taar laata nangam ji laata nangam ji ba tax nga fay jigéew wallahi boo ko defee yaa koy rëcc rek ah boo nee luy tool sa yow lay bàyyi koo pare sa poids sa kaw na ah ay su ko xam ku ko xam aaj yonent lee ko yàq am ko sa tàmbali yar ba mu am juróom-benni at jëm juróom-ñeent mu jox yonent bi mootri yar ay sa jigéen la woon joo xam ni mu ni fala taraha illa saima doo ko gis mukk lu dul ma nga woor xool yi ma ma ngay julli baati ya ma ngay jooy waaye ma ma ngay fëlëf fëlëf ngir am ngërmande yàlla subhanahu wa taala mu ne moo tax feesal na dell taarix ay jàngale ay mbaax ay ragal yàlla yoo xamante ni jigéen ñi ci boppam war nañ ko mën a roy ca loola jigéen la joo xam ni ak ragal yàlla am yegg na ci li ëpp ci bisu dara woor xanaa bisu tabaski bisu korite yooyu nga xam ne dafa xaram yu woor wala jigéen ci gis baax waaye li ëpp ci bisu yu dul bis yii boo dikkee dañ koy fekk mu woor noonu la mbokk mu jigéen ñi ngi bari ay koor yëpp yàlla bi ne benn fan boo ko wooree te yàlla rek ka tax amut lenn lu ko tax yàlla sore laaj safar lu ko loog juróom-ñaar fukki nawet te xadis bi xadis la bu wér allahu akbar bal sax koor day tax nga wér yow miy jàmbat wér si bal sax koor day gën a tax sa xol bi gën a jege yàlla xoolal yow góor wala yow jigéen boo wooree mi ngay jàlloo ci yàlla subhanahu wa taala ah isa ci boppam ak ragal yàllaam yéggoon na koo xam ni ëpp naa ni si subhanallah benn jigéen mooy nekk li nee na benn bis damaa ñëw ci kër Aïcha radiallahu anha mu ne ma ñëw fekk ko tu sabbix tu sabbix mooy ñu ngi julli yoor yoor ak subha mooy yoor yoor Aïcha yi julli yoor yoor njàng bi muy jàng xam naa for na ca baab ya ma ngay jàng suratu Kóor muy jàng ba yegg ci ginnaa kunna qablu fi ahlina musfihin famanna allahu alayna wa waqana adaba samum inna kunna min qablu nadcuuh innahu huwa albarru arrahim ndaw si dina ma taxaw di ko dugg muy rafet aaya jooju di ko baam di jooy di ko baam di jooy fekk dama kaa soxla ko loo fi mu ne ma taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw ba sonn muy baax ko aaya ji rek ma ne comme damaa jëmoon marché xaaral ma dem marché tourné waat mu ne ma dem marché ndukki ak li marché yi sori sori ma tourné waat dikkaat fekk Aïcha muy jàng aaya jooju di jooyaat ba léegi ñu ngi ne ci aaya ji di farakat allahu akbar lii warul nekk kéemaan ci moom ndax xanaan na kër borom këram muy jàng ca suratul maida in tuaddiduhum fa innahum ibadu balaay da jeex yent bi di ko baam ba bilaal nee na fajar ca boppam maa ngi ko fekk muy jooy ba si jaaram dam si jóg jooy tooy sallallahu alayhi wa sallam ndaw si ne na ma jóge marché fekkaat Aïcha muy jooy di baam ko aaya ji mbokk yi xam ngeen aaya ji lu muy tekki waa àjjana bu ñu duggee àjjana yal na yàlla subhanahu wa taala boole ma ci bu ñu duggee àjjana kenn ku nekk na di nekk na di nekk ci xam ngeen àjjana dañuy fàttaliku wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun soo yaa ngi fàttaliku sunu jihaad yaa ngi fàttaliku sunu nangam kenn ku ci nekk di fàttaliku yi doon am ci àjjana kon Aïcha radiyallahu anha nii la meloon ci ragal yàlla wax naa la kon àjjana ci boppam bu ñu ko duggee dañuy fàttaliku aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluun mu ñu ngi fàttaliku nangam si am na bis boo xam ne damaa wóor ba mboor xawma lu ma la bokk billahi alladi la ilaha illa huwa am mbokk nekk li na ma ni woor na ba ngoon mook borom këram amul lu ma ndogoo gerte caaf lañ jëm gerte caaf te ku ma xam la xabaar yi ma yëg ni doyloo sa banque bi moo tax ma di ko nekk waat ak xam ne dëkk la gerte caaf lan ndogoo allahu akbar si jamono bi ñuy dund ko xam na xam naa moom si jëm boppam moom ko nekk kon gis nga bu la fàttee am na ñuy baax ba léegi yaa ngi fàtt si am na guddi boo xam ni kay garab nangam nga yëttaliku ah inna kunna qablu fi ahlina mustaqim ñun de buñ daan toll dañ daan gis di jooy gis la lépp bëgg di ko àjjana fa manna allahu alayna yàlla baaxee nañu wa wafaana adaba samum moo tax tegal nañu bugal nii nga xam ni safa na ko gën ak samum mooy fasu adaba samum mooy bugalum fasam sawara fasam la wa waqaana adaba samum bugalum fasam ne yàlla ci muy lii inna kunna qablu ah inna kunna nad'u innahu huwa al-barru ar-rahim ñun yàgg nañ kaa ñaan àjjana waaye ku baax la waaye ku bëri yërmande la laaye jooju moo doon jooy wax li ma la waxoon sànq laay waxaat di ko jeexale mooy Aïcha wër ta mën a mel neneen ngut ñii ndax su nekkee te ni borom këram moo meloon nii daan julli di jiite allahu akbar saxaaba yi ne léeg-léeg bu yonent bi daan jiite inna kunna nasma'u fi sadrihi aziran ka aziri al-mirjali min al-bukaa léeg-léeg dañ daan dégg xurum xurum yi dënn bi mu wóor ñu ne yent bi kàddu bi jooyut waaye mu ngi jooy ndax dënn bi mu ngi xurum xurum comme ci looy baxal ndax mën a muy mel allahu su nekkee ci ni kan mooy bàyyam am wakkar sa biir ci nga xam ni faatixaam rek day jooyloo nit ñi faatix allahu akbar maa xam nga ni am na ay jigéen yi dugg ci lislaam te fekk na Abubakar moo leen dugalee lislaam jàngum faatix daraan toog ci biir këram di julli bu tàmbalee fatiha balaa jeex ma ngay jooy ma ngay jooy ma ngay jooy ba jigéen ci moom jooy yi am ceetaan la leen defoon am ay jigéen yu tuub dugg ci lislaam ndax loolu fekk kan moo ko jël ibni ibni darinna wala ibni duxanna duxunna ci sahih buxaari moo ko jëloon teg ko biir këram ndax am fakat di gàddaay mu ne ko yow doo gàddaay yow doo génn dëkk bi yow ku baaxee ni yow mel ni puso bu xottee ko ci askan wi nga ñawaat ko yow kenn la bàyyi ngay génn ndax dañu laa fitna ñëwal sama kër maa lay garanti kenn du la laal ibne duxul la war bayin maaka ni Aboubacar ku ko laal man ak yow ñooy jëflante waaye Aboubacar nekk kër ibne duxul na bu julli jotee mu defar jàkkaam comme xam ko subhanallah dañ ko terewoon sax mu génn fakk dañ ne ko yow da nga ñuy gérer ci société bi ndax li mu doon dund ñun ñu xamuñu ko Aboubacar defar ci biir kër ibne duxul na jàkka li ba jullee waaye bu waxtu julli jotee mu ne alhamdulilah rek tàmbali jooy jigéen ñi ñëw di ko dal ba am ñuy tuuf si ca loola yéen rek loolu neexu leen ñu ñëw ci yéen dugg na ni ko yee kii jullim bii na ko bàyyi ak jooyam yi ndax ñu ngi tuubloo suñu jigéen ñi su ko mënul day génn sa kër ba koy bi dugg na ne da ngay bàyyi loolu mu ni ko ah kiiraa gi nga amoon ci man kiiraa gi man genn laa ci sax mooy bu yàlla gi su fekkente ne nii da laa seen jëlaatal sa kiiraa gi ma des ak yàlla noonu la ak ko def génnee kër yi ñu dugg na dem yoon kon mbokk yi dama bëgg ñu xam ni askan si ay way ju mbaax day nekk ci ñoom ak mbon day nekk ci ñoom benn bu ci nekk day ragalaat ci ki nga xam ne mooy aji góorgóorlu ci waaye nag yàlla nag soo génnee woo fa nga war a génnee ak bu see nag sag góorgóorlu doo nga ca def nag nga jëfe tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yaamaluun kon nu ngi ñaan suñu borom borom ñu dafa taw fi gindi ñu dimbale ñu ba xam jëfe gën noo yitteel leneen lu dut moom wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain aywa naam naam nekk ko waaw soxna si saraxe ci dundu borom këram kooku borom xam-xam yi dañ cee wax ay wax dafa may xaalaat xaala bu njëkk ni mooy nax sa borom kër su fekkee yow li nga moom yow ndaw si moom sañ nga koo kar li nga moomee la moom waaye bu dee yéene yoo xamante ni moo la ko jëndal wala loo xamante ni da koo jëndal pour nga di ko sol borom xam-xam dañuy wax ni bu dee yére la comme misaal nga yëgal kooku rek kooku sarax bi moo gën am naa bu dee ration bi ñu war a dundee nag bu fekkee jigéen ji su ko defee borom këram du ko ca wax dara su boobaa mën na ko def su fekkee bu ko defee daf ko cay wax dara su boobaa bàyyi ko moom mooy li gën saraxe kelam moom waaye ànd ak nag rot na ci sunna jigéen mën naa saraxe ci yëfi borom këram waaye loolu nañ na ko borom xam-xam yi jekkee mooy su fekkee góor gi du ca wax dara ndax góor ko moom ak dundam ah sañ naa wax ni man saraxe wu ma loolu lee laay saraxe wala sañ naa seet la muy def waaye li gën a dëgër mooy su fekkee borom kër gi day moom loola du ca mer wala su ko yëgee du ca wax dara su boobaa jigéen ji dana ko def bal ñëw na ci xadis sax bu ko defee borom kër ga day am tiyaab moom am tiyaaba waaye su fekkee da ko def na ci borom kër ga neex ko su boobaa borom kër gaay moom tiyaab moom day am bàkkaar wallahu